ko yorale lu toll ci quatre vingt de francs CFA moom am d'affaire bi nga xamante rek moom moom boobu le bërëb kii di Maimouna Ndour Faye nag bu ñu moytulee dina ñàkk lii di 7TV bu fekkee ne rek boobule dogal nag dogal bu wér la naam sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo moom boobulee mbir nag pare nañ pour récupérer waat seeni matériel bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne rek juriste bii di Camara daal dina ko yëkkati ma ngay daal di xamle boobulee dogal nag nga xam ne moo tukkee rek ci boobulee mbir kii di Maimouna Ndour Faye mën na def appel waaye nag li nga xamante ne rek ñoom ñoo moom boobulee bërëb bu ñu wanee nag ay preuve yu leer nañ nag kii di Maimouna Ndour Faye daal lii di 7TV da koy daal di ñàkk nekk bu fekkee ne rek waxtaan amul ci seen diggante bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci wàllum politique ki di xalifa Sall nag jamono ji daal mel na ni pare na rek pour ber daaral boppam ginnaaw nag bu ñu doon wax ni rek taxaw Sénégal di Khalifa Sall jiite ko nag dafa mel ni rek jamono ji nag dafa am link ak lideru parti Pastef les patriotes ñeel cadre coalition Yewwi Askan Wi mu mel ni taxawu senegal nag jamono ji daal pare na rek pour ber daara boppam kii di ancien maire bu Dakar nag ne na daal mu ngay fas yéen a dajale rek njabootam ngir waajal lii di élection législative yi bu ñu sukkandikoo ci les échos mi joxe boobu le xibaar ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci Mamadou Mansour Diop mi nga xamante ne daal yëkkati yëkkati kàddoom ci sortie bi nga xamante ne kii di Cheikh Yérim sekk defoon na ko ci télévision bi ñu dippee eh, télé Futurs Médias di ci critique nag njiital réew mi ak ilimaanu jorin bu njëkk bi di Ousmane Sonko eh, kii di Mamadou Mansour Diop nay dinay pëttaxlu rek ci boobu lee mbir ginnaaw ba mu gisee ne autorité yu yees yi nag dañoo war a jël ay daan yu saf sàpp ko ci ñenn ñi nga xamante ne rek dañuy yëkkati yenn kàddu yi ak manipuler nag xelu askan wi bu ñu sukkandikoo rek ci journaliste bi moom nag la mu daal di xamle rek mooy am na ci ñoo xamante ne daal xamuñu sax lan lañ war a def ak lan lañ war a def bu ñu leen seetaanee rek dinañ yóbbu ci réew mi foo xamante ne rek fudul foofu la ndax nag dinañu dem rek ba daal di ñu jaxase askan wi ak njiita réew mi te bu boobaa nag askan wi dina sonk gouvernement bi te mbir mu mel nag baaxul ne daal faw gouvernement bi ci boppam rek ne moom moo tukkee ci yooyu rapport contrôle bu ko defee rek euh, ñu mën a woo nit yi nga xamante ne rek jamono ji nag ñoom ñoo laale ci yooyu lay jëf ndax opposition bi mu gis daal ay opposition milliardaire lañ fas yéene jàmmaarloo moom di kaddu kii di Mamadou Mansour Diop ba tey bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax nag ci accident yi nga xamante ne daal mu ngay wéyandi rek ci yoon bi nekk tey ci aljuma ji daal dinañuy nommeeku accident foofu ca diwaan bu Mbour fi nga xamante ne moom mooy ca diwaan bu Bandia ñett doomu aadama ñàkk nañ ci de seen bakkan ñeent ñi nag jëlee ci gaañu gaañu ci ñeent ñi nag ñaar ñi daal ñu ngi ci état bu doy waar boobu le accident di ko waral mooy ñaari camion yu mbëkkante ñoom sapeur pompier yi nag jamono ji nag ñu ngi woon ci boobu le bërëb rek ngir dimbale bu baax ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci Youssou Ndour mi nga xamante ne rek dalaloon nañu ko nag ginnaaw interview bu mu doon amal ci journal bi espagnol bi ñu dippee Ultima Hora kii di Youssou Ndour nag daal dina yëkkati kàddoom rek ak xalaatam ci développement Sénégal rawatina nag bu Afrique moom woykat bi rek daal ne insister rek ci booloo doon benn bu ko defee rek jàmm mën a am ci réew mi waaye nag bu ko defee rek lii di koom-koom mën fee sax dàkk ndax daal dinay gis ne daal réew mënta développé mukk rek te askan wi joxante wuñu loxo doon benn saafu wante na mbir mu nu mel nag daal dina koy wéy sax ci album bi ñu duppee sama doom mu nekk album boo xamante ne rek pratiquement daal na ci wax lépp di kaddu kii di Youssou Ndour ba tey ba ñu jógee ko foofu nag dañu àddu rek wax ci journée nationale de l'arbre bi nga xamante ne rek kii di Diomaye ñu ngi xaar ci dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ni ki dimanche mook ñeenti fan ci weeru août ci atum 2024 ñee cérémonie officielle journée ne rek mooy njël ñuy jëmbat ak lii di souveraineté alimentaire ak naka la ñuy def rek ba daal di am développement ci wàllu koom-koom mu nekk événement boo xamante ne rek kii di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ña ngi ko cay xar ab participation mu nekk journée boo xamante ne rek bu am solo la ci bit réew mi ginnaaw bu ñu bëggee lii di Sénégal vert ak Sénégal bu naat jaarale ko nag ci alam boo xamante ne rek bu mucc ayib la ba tey rek ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci liggéeykat yi AGEROUTE yi nga xamante ne rek débarqué woon nañ ni ki alxames jàpp ajjuma nag ngir gisanteeg jëwriñ bu ñu denk wàllum infrastructure des transports terrestres aériens di Malick Ndiaye si passerelle piéton yu Patte d'Oie ñoom jëwriñ bi nag daal di woon nañu fekkee rek bu ñuy déposé lii di poutre passerelle yi ngir nag xoolaat bu baax camion yi nga xamante ne rek ñoom ñooy faral di fa jaar gannaaw bu ñu waxee ne rek yooyu le camion mën nañu daal di nag boobulee passerelle ci boobulee bërëb nag daal nañu gis directeur général bu AGEROUTE di Mamadou Ndaw mi nga xamante ne rek nekkoon na ci boobulee bërëb ak saytu liggéey bi nga xamante ne rek door nañ ko fa ci ab communiqué bi nga xamante ne jot nañ ko signé nag ak préfet bu Dakar moom jëwrin bi nag daal wax engagement bi nga xamante ne koy am ngir kaaraange mën a am rek ci yoon bi ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañ daal di addu rek ci plainte bi nga xamante ne kii di Abdoulaye Sylla daal di war nag koy déposé nag journaliste yi di Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop ki nga xamante ne moom mooy njiit la la mu daal di gis rek moo di ne nag ñoom ñaari journaliste yooyu dañoo daal di leewal ci lu toll nag ci 855 millions 536 mille 917 francs CFA yoo xamante ne rek dañ na ay compte courant yoo xamante ne rek ñu ngi ko jëlee ci groupe immédiat ci mbir mu nu mel nag ñeneen lañ immédiat kii di Boubacar Diallo ak Mamadou Ndiaye nag ñoom ñoo ko daal di bokk waral homme d'affaires bi daal di accuser rek ki nga xamante ne moom mooy Garego mi nekkoon commissaire des comptes que nag complice la rek ci yëf yi ba tey rek ci wàllum xibaar bu ñu jugee ko foofu nag dañuy daal di àddu rek wax lu tax rek ñu daal di dàq kii di Cheikh Dieng fi nga xamante ne rek moom moo nekk ci office national de l'assainissement ñetti weer yi nga xamante ne rek na ko def ginnaaw bi ñu ay raison yu bari tax nag ñu daal di koy dàq ba ñu sukkandikoo ci journaliste bii di Babacar Touré ne na daal ñeenti mbir yoo xamante ne rek état seetlu na ko ci moom moo tax mu daal di kat ji kii di Cheikh Dieng ca bopp ONAS ba ca njëkk nag ne nañ oto bu toll ci 80 millions de francs CFA lañ ko di may te ki ko may nag ab entreprise buy liggéey ci ONA la mu nekk ci ONAS mu nekk 4x4 Land boo xamante ne rek 80 millions bi nga xamante ne rek ministre di Cheikh Tidiane Dièye yëgoon na ko da di sàkk woon rek mu delloo boobulee oto waaye ki nga xamante ne moom mooy Cheikh daal deful lool dafa préféré rek jël oto ba daal di koy jaay récupéré xaalis ba bu ñu sukkandikoo ba tey ci kii di Babacar Touré ne na kii di Cheikh te jotu ca waxtaan ak ñam ca war a waxtaanal mbir mu nu mel nag moom moo daal di jur coow lu ci digganteem ak ministre tutelle bi ba tey nag li nga xamante ne kii di Cheikh Dieng daal dina koy def moo di nag moom ci jëmmi boppam rek dafa daal di def directeur administratif bu financier DAF ak bu ONAS bi nga xamante ne rek ay parents ñoom ñoo ca daal di lekk ci mbir mu nu mel moo daal di jur rek boobu lee xeex beneen ba ca topp rek kii di Cheikh Dieng bi nga xamante ne rek. jamono ji nag dafa lancé ab marché ba tey rek journaliste bi di Babacar Touré moom moo ko daal di xamle le ne boobule marché nag ñeel set setal bi nga xamante ne moom la ñuy yëngatu ci biir Dakar mu nekk ñaari entreprise yoo xamante ne daal ne nañ benn ba amul benn expérience ci wàllu wi mu nekk ñeenti manquement yoo xamante ne rek bi ko njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéegee nag ci la ko daal di dàq jërë ngeen jëf ci and bi bu leen fàttee abonné parce que cloche de notification yi ngir mën am yeneen i xibaar